Salut les amis de eSport TV, merci encore de la confiance renouvelée, merci de vous de like, merci de vous de abonner, merci également d'y baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager gain information. Mbokki Sénégal yi fépp fu la mënti nekk régions du Sénégal àdduna wërngal këpp ñu ngi di jaajëfal ñu nekk également ci lal hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yal na suñu borom fëgg seen bopp ngeen nekk ci kaso yi ngeen génn fa tegu TV actualité oblige gars yi dañuy waxtaane ci li nga xam ne nag moom mooy donc lii jëm ci mercato bi mais aussi Sadio magnifique Mané bi nga xam ne wax na ci ballon d'or bi Sadio maane nag moom nee na les africains son donc euh, comme dirais-je ah nee na africains yi ñoom ci seen bopp gars yi dañ leen considéré wuñ leen ah donc loolu la Sadio Mané wax loolu nag nañ ci indi ay leeral incha allah rabi mais avant di jëm ci yéenekaay bii di record ci xotam nga njëkk mu ne Sadio Mané sur la finale Liverpool Real pour moi c'est un match comme les autres ah le Real est euh, l'une des meilleures équipes du monde loolu la Sadio Mané wax tey nee na tamit ñoom ah diggante bi ils ont eu beaucoup d'expérience également ci lañ gën a daal di am doole ñoom waa Liverpool yéenekaay bii di stade nag ñëw ne entre exploit soirée inoubliable et déception wax ci nga xam ne nag moom mooy Sadio Mané à jamais le premier 2021 euh, euh, également l'année de Mendy ah loolu la ñu wax ah a jamais stoppé genre loolu lañ ci wax wax également ci ñoom Demba Ba et aussi coupe du Sénégal donc euh, ñu ngi nii ah donc euh, ñii di waa Casa Sport daal ñoo des plus def mel ci leader ak Linguère ah ak Jàmbaar dañ ko Linguère ko dóor UCC Sport Casa ko dóor Étoile Lusitana moo dóor ci FC Teungueth FC AGEL Rufisque moo ko 2-2 buts à

jaay ndax duñ ko fas yéene wuñ ko jaay te duñ ko jaay jamono ah. ki nga xam ne également mooy Serge Gnabry moom euh, gañ Arsenal da ko a rapatrier mais moom nag fi mu ne nii daal waa Bayern ko bëgg a jaay bu fekkee nangu ta toog ba Real Madrid daal lañ jàpp ne bokk na ci favori yi pour daal di ki nga xam ne mooy donc Serge Gnabry en parlant du Real de Madrid nag ki ngeen gis nii di donc euh, Achraf Hakimi nekk ancien joueur Real de Madrid nee ba euh, Mbappé war a joxe décision nee na ñu mu gëjoon a dégg ñu mu gëjoon a dégg dañ ko doon woo ah, di ko laaj nga xam ne Mbappé day ñëw wala du ñëw mais nee na ba Mbappé si tege toogee ki nga xam ne mooy France gars yi dañ ko doon saaga ah, di ko daggal daggal yu garaaw ki nga xam ne mooy donc Achraf Hakimi moo ko wax ki ngeen gis nii également ah, waa Arsenal gars dañoo bëgg mu toog du côté euh, du Arsenal parce que ñoom ñoo Marseille mais fi ne nii bëgg mu ñëwaat ñu xoolaat sax contrat parce que nee nañ dañoo moom lañ bëgg mu nekk si au cœur du projet de Arsenal mais ki nga xam nag moo au cœur de l' actualité mooy Sadio Mané dañ ko laaj nag ñoo ko si les joueurs africains sont souvent injustement négligés mu ne c' vrai la CAN est le plus grand trophée que j'ai gagné dans ma def bi gën a mag bi mu musu mës a gagné et que nee na tey ñaaw ah, donc ki nga xam ne mooy euh, africain jëlul ballon d'or depuis George Weah neen loolu triste la mais aussi comme on ah, dit Sadio Mané moom

des champion bi nga xam ne Sadio Mané sera un élément clé dans le match par rapport ak nga xam ne mooy Liverpool moom nag ak ki Mohamed Salah Sadio Mané jàpp na ne tey africains yi donc ils ne sont pas trop valorisés par rapport ni leen waroon a valoriser parce que nee na tey c'est dommage ñu bañ a considérer li nga xam ne mooy coupe d'Afrique comme trophée majeur la comme ni ko yeneen trophée ni comme coupe d'Europe ni mu ko nekkee comme coupe du monde parce que tey bu ñuy méngalee li nga xam ne mooy coupe d'Afrique du favori. Donc également Karim Benzema, il a fait une saison exceptionnelle, mais rien n'est joué. Sadio Mané mi nga xam ne également en matière de collectif moom moo gagné ah, li xam ne mooy trophée ëpp ah, donc mi ngi nii il a 38,3% Mohamed Salah topp ci Karim Benzema doog a ñëw Thibaut Courtois ak Kylian mais aujourd'hui Sadio Mané en tout cas gars yi bu fekkee ne gagné xam ne nag incha allahu rabi nekk lii di Ligue des a jafe loolu surtout surtout bu fekkee ne Sadio Mané joué na final bi daal di nga xam ne mooy donc aussi ah Edouard Mendy na ah, xam ne mooy meilleur gardien bi joxuñu ko ko Edouard Mendy nga xam ne nee na moom bëgg-bëgg mooy Sadio Mané gagné li nga xam ne mooy Ligue des champions bi en tout cas les Africains donc jox gëdd gi nga xam ne moom la ñu war a jox bu ñu fàtte également yu si mel ah, ki nga xam ne mooy aussi Edouard entre autres mais aujourd'hui le rêve de gagner le ballon d'or tey il faudrait que gars am mentalité xam ne aussi les africains sont sur le même pied que les européens et que aussi médias defar seen image gën defar également seen communication et que aussi que l'Afrique apprenne aujourd'hui à se faire respecter parce que jamono ji dëkk bi bu ñu c'est plus les européens qui ont besoin des africains et le contraire et que tey football africain bu ko développé ne que ne incompétence bi am et que ñi ci nekk ñëpp te waxuñu ci nekk ci également ay membres de la CAF ce sont également pour moi ñoo ñëpp ah ils sont ay complices ci li xaw parce que daaw ba léegi mënuñoo fexe ba joxe ballon d'or africain yi alors que Edouard Mendy na ko jël ah, moo ko waroon sax jël la wax ñi ngi nii di jamaat si beneen léegi dañoo nar joxe ñaari ballon d'or africain ci benn année donc là c'est c'est incompré incompréhensible et que Sadio Mané aujourd'hui aussi gars par rapport aussi à son départ wax nañ ci comme ni ngeen ko waxee moom nee actuellement il va attendre la fin de la Ligue des Champions pour mën cee wax ki nga xam ne mooy Jürgen Klopp nag bëgg bëgg mooy Sadio Mané toog fi nga xam ne mooy donc ca euh, Liverpool mais am na ay xam ne incha allah rabi donc dinañ leen ko ci indi ay leeral donc la finale de la Ligue des Champions gars yi demain là incha allah rabi Liverpool contre Sadio Mané plutôt Real de Madrid Sadio Mané contre nekk 31 sans oublier également derby France Sénégal bi on espère comme d'habitude Sénégal dina ko daal di aussi on se donne rendez tout à l'heure pour la liste d'Aliou Cissé bi moom la ñu ko ne euh, conférence de presse donc ci surtout euh, réinformation daal façon di ngeen ko jot bu ne génn incha on avance ensemble gars yi une agréable fin de journée sur la magie de eSport TV caa ngeen jëf.